asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dañu bëggoon jëkk rek ci le cas de euh, Ndella euh, muy cas boo xam ne amul kenn koo xam ne am nga ci excuse amul benn doomu aadama bu ne ci suuf bu mu naqariwul dafa dem ba doon crime contre l'humanité dafa nekk affaire boo xam ne dafa concerné waa UNICEF dafa nekk affaire boo xam ne dafa concerné waa les la commission des droits de l'homme dafa nekk affaire boo xam ne dafa concerné même UNESCO donc le gouvernement du Sénégal le gouvernement du Sénégal waroon na jóg awale ko ci yoon awale ko ci yoon te xam ne jigéen la elle la commis une bêtise te fii li fi waaye defit da nga jàkkaarloog yoon yoon leeral ko ndax àddina bi dañ koo bokk teg ko ci kaw charte elle a les chartes nañ ko teg loxo te déglu ko te may ko chance utal ko avocat yu ko défendre waaw li defoon lu grave ngi noonu benn prisonnier privé dans une république nga créer sa prison bopp jël ay nit di leen fa tëj ak di tijji di violer seeni droit ak seen human right te le gouvernement du Sénégal ba heure bi heure bi waxuñ ci dara waxuñ ci dara waxuma ngeen sukkandiku ci Modou Kara bàyyi Ndella Madior Diouf waxuma loolu ndeela a des comptes à rendre Ndella dafa répondre ay questions comme ni mu ko war répondre noonu la ko Modou Kara waroon a wuyoo te ba ndëgg ni suma ngeen tudd Modou Kara respecté leen nit ñi indi loi bi mu jaar yoon dans une république tu n'as pas le droit nga ubbi sa kaso bopp dans une république nguur say alkaati dans une république nguur say mercenaire dans une république nga wut ñoo xam ne dégg am ay nervi lañ di leen mettre en location loolu Modou Kara def na ko ba mu dara kam ñun ñëpp ñu bokk yëgandoo kon su ngeen bëggee sonal ndaw si ak nii mu nar sonne amul yu taxaw ndax santul Mbàkke santul si santul taal yéen waa Sénégal jóg leen ngeen taxaw ci ginnaaw ndaw si ba am dëgg ñu àtte ko ci dëgg ñi fi doon crime bii crime bii la gendarmerie jóg leen crime de tardement néew ci waaw jóg leen ngeen informer nit ñi informe le monde entier waaw vous n'avez pas le droit di téye xal di ndaw si ci kaso bi di bàyyi keneen muy dem parce que aw santu mag la yor noonu yor santi baadoola voilà nan yamali ñëpp waaw kaso amoo droit di ko tijji di ko mettre di euh, en privé loolu kenn ku ne xam ne du dëgg du yoon wut say alkaati takk ay badge ñii dooni commandant ñii di na te réew mi ne fi dans une république kooku jaaduwul jaaduwul waaw ndaw si bam mu commencé lii ëpp na trois ans Marème Faye Sall xam na lépp la fondation servir le Sénégal xam nañ lépp ndaw si amul benn kayit bu ko permettre mu. encore ma bokk ma bëggoon nu bokk gëm ne supporté ma ndaw si lii mu def crime contre l'humanité la lii mu def dama ne àdduna bépp war nañ koo yëg organisation yi protéger xale yi ci àdduna bi war nañ koo yëg ndax lii c'est international bërki démb rek si leen jàpp Kenya avion bu fees dell ak xale fétiche dañoo soxla ay xale politiciens yi dañoo soxla ay xale encore une fois waxuma ko pour yërëm ndaw si ndaw si mu def crime bu mag a mag a mag la def lu ñu war a siiwal la dañ ko war a àtte teg ko ci yoon waaye Modou Ka rek il de des comptes rendre au peuple sénégalais ñi mu jàpp di tëj ci kaso bi ami gàllarme ki léppam dans une république te kenn du wax man loolu moom a gën a métti waaw xale yii jàpp nag ndaw si téye ba ban loru dama ne xale yi leen di jaay am na ñu jaayi xale. waaw ndaw si lim jot a exporté kenn xamul mu toll kenn xamu ko de da ngeen di làmbatu rek. lii dee mu suul ko juróom-benn ngeen wax waaye boo dee ëpp na ko fuuf waaw Modou Kar li dee ci kaso bi kii waxu leen ko ci dee waxu leen ko de kon noo ngi jégalu baax a baax di ñaan jàmm ci réew mi ak àtte dëgg dëgg rek. bu lépp jaaree yoon nun ñëpp la doon bokk ànd ci yoon ñu jégalu te ñaan jàmm man la Seydina Ousmane Dramé. bu la réveil des consciences Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla na buur yàlla suturaal yàlla na buur yàlla suturaal te jàmm ci réew